ravi de vous retrouver ami internet de Dakar Buzz TV ñu ngi leen di bu baax di leen ziar amaat mbégte rek jàkkaarloog yéen saa su ne comme niñ koy amalee tout le temps ci seen émission Koroy Star tey nag ñu dalal ndaanaan dalal actrice boo xamante ne kenn dootu ko présenté suñu réew rawatina bitim réew ñu ànd ak moom mu def tey liggéey bu am solo daal di joxandogu dem Masaalikul Jinaan yóbbu fa affaire yu am maanaa ñu tow rek war a waxtaan ak moom échangeante ñu ngi leen nuyu bu baax di la dalal. maa ngi lay fay di lay ziar di lay baalu ak ci weeru koor bi di nuyu euh, internet Dakar Buzz yëpp leen di ziar di leen baalu ak ci weeru koor bi di baalu ñëpp ak aussi amaana wax nga wala jëf nga jëf yoo xamante ne ni euh, tooñ nga peut-être kenn donc euh, ñu profité waale ci weeru koor bi rek di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla yal nañu yàlla nangul suñu koor jégguñu suñu bàkkaar ci barke Nabi Moustapha. balaa ñuy ñëw ci yëf yu am solo yi nga def tey dañuy ñëwaat nga expliquer ñu bu baax kan mooy maman alias Mbayang. alors euh, maman Faty benn nit la boo xamante ne mën nañ wax taalibe la ñëpp xam nañ mu ci taalibe mi ngi noonu may nekk ma nekk benn nit boo xamante ne bu ordinaire bu simple mhm. mooy maman Faty mhm. euh, tey boo doon ñëw sa fi nga jaar tey ba yegg si si fi nii tey <laughs> sama parcours su may wax en tant que euh, peut-être Mbayang damay ne je suis jeune actrice boo xamante ne mi ngi door a débuté yàggul ça fait juste deux ans mhm. donc may actrice ci maison de production boobu ñuy wax euh, Evenprod Sénégal donc euh, foofu la ma ñëpp xamee. Mhm. à part tey Evenprod bi nga nekk mosoo jaar ci beneen maison de production. si si mës naa jaar ci maison de produ beneen maison de production d'ailleurs foofu laa commencé muy avec waa Yes Dakar. Mhm. Mhm. foofu laa foofu laa commencé après laa ñëw liggéey ak waa. Euh, Even Prod. mais actuellement may liggéey waat ak waa Yes Dakar. Euh, art bi tey ñu gis la ci nga ciy def yu am solo loo doonu la wala loo xamante ne sa passion la nga xëy rek def ko. boo on peut que passion la mais itam def naa ay atelier def naa euh, def naa tuuti atelier. Mhm. donc mu ngi noonu waa. Mhm. da nga ñëw wane sa bopp rek daal di bokk. waaw <laughs> on peut dire passion boo xamante yaa ngi koy def mu neex la yaa ngi ciy gis sa bopp en fait. waaw mu ngi ci gis sama bopp macha allah mu ngi ci gis sama bopp bu baax baax. Mm-hmm. Euh, nga nekk ci troisième saison infidèle mm-hmm. nga ciy joué rôle boo xamante ne sénégalais yi parfois ñu apprécier parfois lii naka nga dundee trois saisons yëpp nga xam ne joué nga ko ci infidèle toujours rek damay wax maa koy dund ak positivement mm-hmm. parce que. Euh, chose la boo xamante ni première saison bi amaana métti woon na trop ci mm-hmm. critique yi ci euh, jugement yi et mm-hmm. tout xam nga nit ñi dañuy wax si yow fekk duñ la xam métti mm-hmm. woon na au début métti dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin doole waa sant yàlla rek parce que tey ñëpp ne nañ waaw finalement sa relation ak acteurs yi actrices yi nekk ci série bi Euh, man ñëpp relation bu normal laa am ak ñoom relation euh, frère ak seur relation sœur ak sœur donc noonu laa dundee ak ñëpp jàmmoo ak ñëpp parce que loolu laa xam. Mhm. mais ba gis nañ leen ñu dem fële ca Liberté 6. prison jigéen ñi mm. joxe fa ay ndogug lépp mm. mais gisuñu la te nga bokk ci actrice yi. si si ah bu ngeen xoolee sax si euh, communication bi defoon nañ sama ay affiche et tout man tam maa ngi ko doon wane. Mm-hmm. mais dafa fekk des fois rek da ngay jàpp et moo tax. Mm-hmm. mais lu may tuub la nag. Mm-hmm. parce que man moom bëgg social. ñëpp xamee nañ ma ci loolu donc tey. Euh, ñuy def ndogu ci prison yi ak prison yi ñu bëggee actrices yi ak acteurs yi et tout donc yoon woon ma dem euh, tey nga nekk jigéen nekk ci milieu bi naka naka nga gisee bi bon bi nag euh, man duma ci mën a wax lu bëri bëri bëri mhm. parce que yàgguma ci milieu bi ba pare aussi euh, kiiwuma trop je suis pas trop dedans nekkuma si biir a biir. donc man boo ma gisee ni ma gisee nii laa mel. ku woyof boo xamante ne nii <laughs> pratiquement kër gi rek laay toog à part sama liggéey maa ngi si kër gi. mais deux ans yi nga jot a ci milieu parce que boo benn mbir boo ci defee un an rek da ci jot am expérience deux ans yi nga xam ne def nga ko ci millier bi amul lenn loo xam ne dund nga ko ci jafe-jafe ci milieu bi wala loo xam ne bett na la musoo ko sóor ci millier bi nga nekk. non franchement amaguma lool nag ñaan yàlla rek bañ ci bañ ci am benn. benn benn affaire bu mel noonu. Mhm. Mhm. parfois dañuy dégg ne tamit dañ leen di chantage balaa ñuy jël xale yu jigéen ñi balaa ñuy jouer théâtre di génn di fës dañ leen di chantage am ñu leen di proposer mhm. dund nga lu mel loolu wala nga xam ko dundu loolu. non franchement parler je pense que sama première interview mosuma posé question boobu. te waxoon naa ci. Euh, musuma ko dund mosuma mm-hmm. am tamit kenn koo xamante ne gis naa ne mu ne moom dundu na lu mel noonu mm-hmm. franchement mm-hmm. man maison de production bu ma njëkk a liggéeyal mu nekk ak waaye Dakar te ñoom sama kër laa toog comme nii koor di togg ñu ma téléphone ni ma ma bëggoon gis ma bëggoon euh, gis ma ñëw déplacé wu dem ñu gis ma sama profil neex leen ma nekk ci euh, première saison secret de famille. Mm. après loolu yàggul ci laa reprendre euh, ci laa def beneen saison première saison Aqua Infidèle. Mm-hmm. boobu aussi casting la donc wax naa ko fépp par le biais de Xossa euh, si Diop. moo ma woo téléphone weeru koor comme ni aussi ne ma casting dañ la soxla etou tout bëggoon nga ñëw nga tenter sa chance. Mm-hmm. ma dem ñu jël ma donc xool xarit la xam naa ko bu yàgg. Mm-hmm. sama frère et donc pour man peut-être. mun na am nag ñoo xamante dund nañ ko. parce que il faut jamais dire jamais. mais man wax dëgg yàlla mosuma dund lu mel noonu tam mosuma gis nit bu nga xamante ne taxaw mu ne man dund naa loolu franchement parler. Mm-hmm. Euh, tey ngay porteur de voix ñawteef bi bari Sénégal sedd nañ ko démb mooy ci mujj ñaari élèves yuy doonte ba ba yoon teg ci ñoom loxo ak viol yi bari na rey bi bari na ñaawteef yi bari yàkkante beeg yooyu naka nga ko jàngatee en tant que porteur de chose boo xamante ne vraiment képp kuy nit nga am imaan. nga nekk nit kese en tant que yi na la metti ñu la touché et tout mais peut-être aussi léegi àdduna bi moo jaxasoo moo doy waar ba doo comprendre mais man lu may wax toujours rek mooy nit ñi ñu moytu di gën a def attention di éviter peut-être di exposer wu tout le temps xam mhm. nga tam des fois peut-être doo xam sax mhm. boo xam à la fin mhm. franchement. mais parfois dañu doon gis ci théâtre yi dañuy dañuy yeete dañuy yar xale yi day tax ñu xam seen place nañu war a toggee mais ce que tey les acteurs yi actrices ñu ngi joué rôle boo xamante ne day éduquer xale yi. parce que ñaawteef bi bari na. bien sûr euh, actrice loolu mooy rôle am. Mhm. mooy éduquer mooy yeete. Mhm. boo xoolee infidèle lépp loo xamante ne joué nañ ko si rek. boo xoolee bu fekkee yow da ngay seetaan ak sa xel da nga xam ne lii yeete la. parce que dañuy dénoncer li nga xamante ne moo am ci réew mi. Mm. joué naa fi euh, euh, avec waa Yes Dakar. Mm-hmm. ay thèmes yoo xamante ne ay thèmes yu am solo la. Mm-hmm. imaginel nga am nga nekk pauvre. Mm-hmm. nit boo xamante ne ni dërëm jotul ginnaawam. ñu bëgg la forcer mariage koo xamante ne ni parce que dafa xaw am tuuti. sa papa bëggul nga sëy koo xamante ne amul bu nga sëy ko am loolu yëpp ay yeete la. infidèle aussi boo xoolee lépp yeete la. boo xoolee tey famille ñoom di jàll lépp yeete la jàngat la mhm. Mhm. tey mbéyang lu muy joué saison 3 bi dañoo wan du ku def lu bon lu bon moo la ciy fekk mhm. ndax ba àdduna nekk àdduna ba tey kenn musul def lu baax fayeeku lu bon wala nga def lu bon fayeeku lu bon boo defee lu bon à la finalité toujours da ngay gis ci fu bon ngay mujjee soit di nga dee soit di nga ñàkk soit di nga nekk ci ay jafe-jafe mbéyang foofu la mujjee def lu bon am jëkkër am far dem sa jëkkër jàppale nga rey sa jëkkër fan la mujjee prison. Mhm. dem na ba perdre la euh, euh, euh, nu ñu koy waxatee non pas la mémoire dafa dem ba dafa dof. elle a elle perdu la raison. Mhm. est-ce que tu vois donc chose de boo xamante ne ni mënoo def lu baax. Mhm. mbay mbay toujours muy am muy am victoire. non dem na ba nekk prison ñu koy maltraité. di koy du xeex na fa. ñu dul ko ba yàq kanamam. yow tey d'après rôle boobu nga joué ban ban expérience la jox quand en tant que jigéen. en tant que jigéen expérience yu ma jox franchement bëri na mun naa wax aussi euh, leçon yu mu si mun a jëlee tamit euh, bëri na. Mhm. parce que mooy li ma wax léegi rek. Mhm. mënoo def lu bon nga am lu bon nga am lu baax. Mhm. tey jàng naa ci que euh, boo bëggee boo bëggee yegg fenn fi. par exemple booy sëy. da ngay def te sotti que ni déjà góor bi ngay sëy na nga ko bëgg. Mhm. na la bëgg am sa yërmande. Mhm. loolu laa ci jàng pour man sëy base bi loolu la. Mhm. yërmande ak mbëggeel. loolu bu amee rek après lépp. mën nañu wax ni kii kese la du koy renforcer kese la. Euh, loolu ngay jàng. ci ci série bi ba tey euh, bu seen milieu bi concurrence bi. yaa ngi koy dund parce que bés dinañ gis ne ñaar nit buñ bokkee fuñ jëm parfois day amante concurrence est-ce que yaa ngi dund concurrence boobu yow. non sincèrement parler man ko dund parce que man nag du ma bàyyi xel ci nit. Mm. du ma dund loolu xam nga boo xam nag laa ko mën a waxee du question wax pour kii sa bopp. Mm-hmm. Euh, ñu ko waxee ci olof jay sa bopp wala yooyu noonu mm-hmm. mais boo suuree. man gisuma ci àddina du la mën a wan wala lan loo mën a gis sa morom encore bu mu fëkk sa bët ba mu tax na yow nga teg ko bët mm-hmm. bay concurrence ak moom mm-hmm. pour man base bi foofu la mm-hmm. ñàkk doylu gisuma nit cest di man déjà du ma dund affaire de concurrence man ku ma gis mais tey mën nga nekk ci série bi comme yow ñu gis ne yaa ngi wane loolu ci yow yaa ngi wane yaa ngi donné ñu gis ni ki ca ginnaaw joxewul mais est-ce que tey loolu du indante concurrence seen diggante non sama non non sincèrement gisuma ko foofu foofu daal bu ma fa gis mooy esprit d'équipe nit yoo xamante ne ñu ngi liggéey ku koo ci gis man damay toog ay ay mois du ma gis yenn actrices yi bu ñu gisantewee dañuy mel ni comme si démb ñoo nekkoon. Euh, ñu ñëw ba tey jigéen parce que boo toogee jigéen di waxtaan ak moom da nga koy laaj pour jéem a xam parce que askanu Sénégal tey dañuy dund naqar semaine bi yëpp mën nañ ne weeru koor gi bu commencé ba tey ndax gis nañ ci jigéen joo xamante ne soxna Astou kii négligence médicale moo tax mu ñàkk bakkanam kanam ce que tey ñu ngi teg place su jigéen gëdd bi nga xam ne moom la war a moom ñu ngi ko koy jox di ko ko delloo. Ah, loolu moom sa à dire que en tant que jigéen déjà loolu rafetlu ma ko nakaru naa ko trop. parce que tey dama koy jël si c'était euh, su ma nekkoon à sa place. Mm-hmm. ma nekk euh, ci situation bu mel noonu dina nakari sama ay mbokk. Mm-hmm. mais toujours rek comme ni ñëpp di wax peut-être sam Sénégal moo toll foo xamante ne ni. côté médical c'est pas trop avancé wala am na si yenn zone yoo xamante ne aussi euh, amuñu yenn matériel yi ak ak ak yooyu noonu et peut-être loolu moo tax ñuy ñuy subir yenn problème yi. Mm-hmm. mais lu ñuy ñaan rek yàlla mooy peut-être yal nañu yàlla def ñu bokk ci réew yi nga xamante ne dinañ dem lu ñu amati problème yu mel noonu. Mm-hmm. Euh, ci milieu bi lañ nekk foofu ñu laal yooyu sama morom actrice Halima Gadji am problème mu bopp boppam tamit problème di génn ci réseaux sociaux yi di def direct di wax lu n'importe quoi tey ñëpp ñu ngi métti lu loolu naka nga dundee loolu bi nga ko yëgee. déjà pour commencer je pense que waxoon naa ko sama première interview bi ngeen ñëwee fii sama kër moo nekkoon daaw. Mm-hmm. Euh, waxoon naa ko moom yokku na bokk na ci ñu tax man ma ñemee jouer sama role parce que tey euh, infidèle bu imposé woo amaana dafa gis maîtresse d'un homme marié def fi loo xamante ne Sénégal yëpp bàyyi nañ ci xel. Mm-hmm. mooy donc moom actrice la boo xamante ne dafa bokk ci samay actrice yu nga xamante ne dam leen def comme sama ay idole dans le métier. Mm-hmm. parce que lu muy def bëgg na ko lu muy def mën na ko lu muy def macha allah gëm na ko. Mm-hmm. te ku am avenir la ci ci milieu bi. Mm-hmm. ci métier bi et tout. Euh, mënuma ci wax nag lu bëri parce que xaw ma problème bi euh, nu mu nu mu nu mu demee et mais ñëpp gis nañ sama sama page snap. posté naa ko. Mm-hmm. Euh, kii naa ko encouragé naa ko et parce que jigéen la du mm-hmm. dara ñun tam mi jigéen laa. Mm-hmm. lu ko dal tey suba mun na ma dal. parce que àdduna tànk yaa ngi dox. xamu naka lañ koy waxee yaa ngi dox doo jug ci. gis mbetteel daal dara jombul kenn olof daal mais. tànk natt du wees. waaw kay waaw. saa diir dire àdduna boo ci nekkee dund bu sotteegu lu nekk xaj na ci. tey man mën naa dem di tourner suba ma xëy. ma am ay problème donc ça peut arriver à tout le di koy masawu di wax yàlla na ko indiwaat yàlla na yàlla indiwaat xelam. yal na ko yàlla gën koo taxaw parce que tamit ñun dañoo exposé wu de. ñu cat ñu dëkk ak cat. dama dem euh, boo gisee tey ma dem Masaalikul Jinaan dama dem Màggal Tuubaa. sama benn xaritu Mbàkke Mbàkke ki tax tey ma dem Masaalikul Jinaan suñu daam benn euh, euh, sëriñam mhm. muy xaritam di magam ne ma mhm. yéen leen nag laa leen ragalal te kilifa la mhm. kilifa diine mu ne ma cat ndax sànq ñu ngi génn télé toujours cat mu ngi ak ñun donc cat du wees mais est-ce que tey tamit nekkul xale yi liñ dul làqatu mooy waral loolu comme TikTok bi bari na sinab yeeg lépp waaw peut man tamit maa ngi ci maa snap bi de. Mhm. peut awma aw ma TikTok nag parce que je suis pas trop TikTok. Mhm. mais maa ngi ci snap bi mhm. jamono bi léegi nag moo dox. ba ñi am ay euh, TikTok ñi am ay snap et tout. on tout le temps exposé man mi je si exposé aussi. mais dañuy ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla. Euh, suturaal yàlla sàmmal ñu boppam man saa yi ma jurul laay ñaan yàlla yàlla sàmmal boppam ndax tant que yàlla mu lay sàmm peut-être rëcc nga wala la ñuy ñaan. dëgg la ku mu rek doo réer yàlla ñu yàlla sàmm comme ni nga ko waxee ba tey ñu ñëw ci sa ci sa woykat parce que dañuy faral di déglu nga koy nga koy déglu tout temps Wally Seck dafa mel ni danga nga koo bëgg. Mm-hmm. Euh, démb ñu gis ne xaw na am problème ak gendarmerie parce que taxawloo nañ ko taxawul mu dem naan nañ ko bindal ba loolu xaw a indi benn bruit démb fii Sénégal naka nga gisee loolu. bon pour te dire la vérité nag man loolu gisuma ko yaa ma ko wax léegi nii. Mm-hmm. man chaque jour damay def social. Mm-hmm. dafa fekk ni sama mag moo nekk sama ginnaaw mhm. te buggul sax lii mhm. waxoon naa leen ko fi mhm. euh, euh, Malick daf may woo di may woo di may woo ba kër bi commencé ba tey may woo téléphone chaque jour <laughs> mbayang la defoon nañ ko daa fekkee nañ ko doon fu ñu ñëwaat ma ne ko Malick c'est-à-dire du ma am jot pour mën a xool yenn affaire yi mais nag lenn laa mën a wax mooy nit la ba nga xamante ne nit moo bëgg la Wally Seck bëgg naa ko parce dama gis cest diir dire euh, lu muy def. Mhm. mën na ko nit ñi bëgg nañ ko. Mhm. ba pare euh, am na am na xam na ko waxee nu ko mën a waxee wàcce na boppam. Mhm. yaa ngi comprendre donc peut-être loolu accident la. xam nga lu ñuy wax euh, nit ki man mii tey mën naa génn def loo xamante ne du neex nit ñi du neex nit ñi. donc man sax mun na mun ma bañ mën naa bañ a mën a conseiller sama bopp. tey moom moom muy porteur de voix est-ce que tey loolu moo doonoon rôle am mu mu jàppanteeg gendarmerie ba xale yi di ko yuuxoo yaa fi est-ce que geste boobu tey yow nan nga ko jàngatee yow. Euh, mooy li ma la wax léegi dama wax dëgg yàlla ba léegi gisaguma image bi mm. mais euh, en tant que porteur de voix donc mun foo war a joxe bon exemple mm. pour que euh, nit ñi. ëllëg ñu ba ngi def lu mel noonu parce que mm-hmm. tey peut-être na ko def man bu subaa mën naa ko def aussi mm-hmm. parce que waal def na ko mm-hmm. parce que man tam ma ko bëgg donc keneen mën na génn ci mbedd bi bëgg ko gis loolu na mu ne ah waal def na ko man tam naa ko def mais pour man peut euh, kii la rek ndogal la mais su ma doon moom daal bu mu ko defati ndax loo leen def nit ñi dañ koy toppandoo abi maayek lépp ci bokk yam <laughs> ñi ñëw ci mbaay dañu gis actrices yu bari dañuy génnee seen ay si napp ak lii ana say waajur samay waajur dañoo génn donc sama yaay mi ngi gaañu en 2007 sama papa en 2015 donc loolu nag question la boo xamante ni question bu ma tiis la te bëgg ma nit ma koy poser. non mais man bëgguma sa émission bëgguma yàq sa émission. doo ko yàq say say wajur sa wajur mm-hmm. mm-hmm. bu jigéen. naka nga meloon ak moom. bu jigéen. non il faut que ma sa wajur bu jigéen naka nga meloon ak moom. àdduna nii la masa demal maa ngi ñëw rek moo fi nekk tey sant yàlla bu la gisee ngay ngay def social bu la gisee ne yaa ngi tegu ci yoon bu baax bi loolu rek sant yàlla la dolli di ko ñaanal massa metti na torop mais sunu boroom moom ak ay dogalam. masa masa na ko sunu borom yërëm saraxam yàgg ci sa loxo. ëllëg ñun la wala sa morom bari ay tuut tànk yoo xamante ne yow jot nga dund ak sa wayjur bari na ay tuut tànk yoo xam ne dañoo judd fekk seen wayjur dëddu jotuñu leen miin jotuñoo xamante ak ñoom buñ la fi fekkoon tey gis la dañuy gën a sant yàlla ndax tegu nga ci yoon bu baax ñaanal leen nga nga dénk yow tamit sa moroomu jigéen ñi lay seetaan te ñu nekk ay doom naka lañu war a dund ak seen ay wayjur. bon déjà wayjur xam nañ du moroom donc. Euh, ku nekk ak sa waajur daal profité comme ni ma gis sama copine yi di def rek euh, toppatoo seen waajur yi rek. tey waaye bëgguma nga jooy ndax xam nga man dama laa seet si nga defal ma ndogu bu neex ma ndogu bu suur man ak Malick soo jooyee rek danga nga yàgg sama émission ndax li ma la bëgg a laaj ñu waxtaanee ko dafa bari yal na leen sunu borom yërëm saraxam yàgg say loxo nga mën di leen defal li nga leen defal mooy nga leen di yónnee ay ñaan. yal na suñu borom may loolu nga yàgg di ko def tey ñu ñëw gis nga def social nga nga joxe daaw def nga ko ren def nga ko social boobu lan moo la poussé nga koy def. bon social bi du du commencé wuñ ko léegi man bu ngeen xoolee man xale laa en fait j'ai que 27 mhm. ans. Mhm. le 9 mai laa am 28 ans. Mhm. donc euh, ba sama papa génne àddina ba tey 2015 la. 2015 2022 7 ans la. di jàppal ne ba ma amee 20 ans ba tey ñu ngi koy def. donc sama grande sœur moo koy def du man peut-être sama as tuut ba nga xamante ne ni maa ngi koy liggéey mhm. du koy am laa ci laa ci yokk laa ci mottali ak peut-être lu mën a ñuy xam bëgg di ñëw mhm. di def émission yu mel ni ci koor yi ma ciy boole. Mhm. donc ku daf may woo téléphone pour dafa am émission mais damay damay bañ. mais peut-être maa rek laa xamul nu ma koy def. wax naa leen def social di làkkatu exactement dañ koy def chaque année. donc dañuy def ay enveloppe xaalis dañuy def ay ceeb doolin suukar Auchan la ñuy duggee. lépp lu am ci sama kër fii ci kër gi. Mm-hmm. gis nga appartement bi. Mm-hmm. lépp lu fi am muy muy xéwoon muy lekk. Mm-hmm. moom la ñuy jënd. di koy jox dañ koy commencé nag suñu biir kër yi ba pare suñu biir kër yi mooy suñu mbokk yi nga xamante ne seen doole gi tur seen ginnaaw. taalibe yi kër daara yi dañ ko fay yóbbu. dañ koy yóbbu ñoo xamante ne xamuñu leen. donc dañuy commencé ci famille bi ci daara bi ak ci mbedd bi. loolu sama grande sœur moo koy def. donc loolu bëggu ci dara. lu dul ngërëm suñu borom ak yiw kese. yow premier jour nga def ko nga gis yaa ngi jox nit ñi lekk jour boobu lan nga sentir. bu ma ko daree def wax naa la def na mine de rien sept ans yàgg na mm-hmm. donc bien avant may génn télé bien avant kenn di may xam. Mm-hmm. te loolu changé wul mbégte la chaque année dañ ciy sant suñu borom ndax mm-hmm. chaque année day day gën a day gën a yokk. je me rappelle première fois bañ koy def. Euh, c'était juste un truc bu nga xamante ne du woon du grandiose du woon du rëy dama defoon juste comme sama papa dafa bëggoon buy ndogu di def comme ni ñu fi fekkee nii rek fromage jambon gruyère def lépp def pain toog def euh, café meew lekk noonu lañ ko daan defee dama daan def chaque lundi ak jeudi dama daan woor su ma wooree même du may ndogoo moom laa yóbbu ci jaat même fekkee benn sachet la Auchan wala benn sachet boutique moom laa jënd yóbbu mu nekk ndogu kenn foofu noonu ko woor weeru koor bi nag loolu la ñuy def dañ ko gën a yaatal rek yokk ci ay lépp luy xewal rek mm-hmm. yokk ci mm-hmm. mais mbégte la mm-hmm. tey yow nga woor ba euh, ngoon jot nga jox kenn mu lekk yéen ñaar yéen a bokk seen yiw donc boo ko defalee nit yu bëri yiw kese nga ci am te loolu dog lañ ci bëgg yiw bi kese ñu gis am nga relation bu bien ak euh, euh, Bilal bi ak imam bu sa koñ relation boobu lan moo ko waral relation boobu mun naa ne tey àdduna dafa gàtt xam nga boo dundee nga nekk jigéen wala nga nekk nit déjà man gisaguma ku dund ba am cent cinq ans wala cent sama yaay bu muy gaañ élevé quarante sept ans sama papa bu muy gaañ amul soixante ans est que amul cinquante sept ans cela veut dire que ni àdduna dafa gàtt te euh, boo nekkee ndaw di ngay miinal sa tànk ci jumaa ji au moins dalay dafay tax daal peut-être am na yu bëri yoo xamante ne ni. Mhm. Euh, tey bés boo génnoon àdduna ma ko yàlla. Mhm. jumaa bi ni lay yóbbu. donc relation boo boo tisee ak. Euh, mhm. imaam bi wala bilal bi rek. defoo ko kenn sa bopp nga ko def. pour man parce que tey rafet na au moins buñ lay takk. wala boo génnee àdduna buñ la buñ la indi ci jumaa ji. au moins imaam bi xam ne ni kii kat daan na fi ñëw. loolu pour man yiw gënu koo rëy. moo tax may tise lien boobu ak moom. Mhm. koñ bi fi du ma dugg fenn. Mhm. kenn xamuma. Mhm. sama kër jumaa bi dëkkandoo yi ku ma romb nag dinaa la nuyu parce que pour man nuyu ci jaamu yàlla la bokk. dinaa nuyu ñëpp sekk ñëpp jaam ak salaam. loolu si normal la. yàlla suñu borom gën a yàggal taxawaay bi nga yàgg di ko mën at bu jot lekk la nga mën ren raw la nga defoon déwén incha allah ñu ñëw ci may ci ci ci théâtre yi dañu gis ne dafa capricieuse dafa pànk est-ce que vraiment yow loolu ngay dund pànk boobu affaire yu sew yi. non pànk boobu na ko dëgg yàlla peut-être nag bëri naa wax nii. ka mm-hmm. foo reetaan et mais pànk ma. Mbaye nag personnage boo xamante ni dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko créer. Mm-hmm. dañ ko dañoo créer rôle Mbaye ba ci lépp lu muy lu muy defee. Mm-hmm. donc lu ñu créer la la rek boo ne ni dañ ko dafay incarner benn rôle. et que pour man. mu ngi koy def ni mu waree. Mhm. donc après booy toogaat di seetaan sa bopp. man de su may ree seen samb damay taan sama bopp damay ne est-ce kii mën naa lii mën naa mhm. euh, mais nag célibataire bi doy na à quand le mariage. bientôt incha allah peut-être bu ko yàlla bu yàlla nee waaw rek incha allah léegi rek. Mhm. yàggatul. xam nga ñeneen daal mariage moom. bu gëtee rek yomb. waaw mais dafa mel da ngaa bëgg yëfu deuxième position. non la may affaire deuxième position yooyu. wala wala awa ah, yaay nga bëgg a doon. Fatima du yàlla wax rek loolu la. boo ci am rek baax na. mais ñun ñu ngi ñu ngi dégg ci ay économie koo xamante ni ku siiw la Sénégal ñëpp xam nañ ko mu ngi fëgg bunt bi la xaar mu dugg ñu mariage. Fatima loolu yaa ko wax de. non non loolu dafa am nag. c'est que dégg ma ko fenn ci yow la yéexee wala ci moom. non dégg ma loolu fenn si yow laa ko <laughs> dégg. bàyyil na bi xam nga Sénégal lañ ne. loolu ah, danga may wax ci kan la yéexee bu dee ci moom la ñu lijjanti ko léegi bu dee ci yow la balaa may dem mu forcé la ko. man de si yow laa déggee loolu. <laughs> day day làqatu mais am na ponkal buy buy fëgg. bientôt ngeen waaj ko nag ngeen waaj sañ say ndax bientôt day dem. tey boo amoon amiin yaa rabbi yal na la <laughs> <laughs> conseil booy jox sa moromu jigéen ñi xale yi nekk ci milieu beeg yooyu. Euh, conseil yu ma leen di jox mooy euh, pour commencer ñi nga xamante ne dañuy jàng. Mm-hmm. ñu concentré wu ci seen jàng ñu jàng. Mm-hmm. ñu xam ne ni jàng mooy priorité. Mm-hmm. man sax su ma sañoon continuer waat sama étude. Mm-hmm. parce que euh, jàng du wees. ñi war a jàng na ñu jàng ñi xam ne ñoo bëgg def dara. ñu am au moins métier. léegi nag bu fekkee nga bëgg dugg si milieu bi. milieu bi du c'est pas éternel. nekkul aussi chose boo xamante ne c'est durable. da ci ciy nekk pour un laps de temps. tey mën nga am jëkkër nga arrêté boo boo nekkee jigéen walla nga nekk ndaw jàngil wala util métier man ñaar yooyu rek laay conseillé sama euh, mbokk jeunes yi mm-hmm. wala sama mbokk jigéen ñi wala képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Dakar Buzz mm-hmm. li ma lay conseil rek mooy loolu. Mhm. loolu moom boo ko boo ci dëkkee da koy def nga saxal ko. Mhm. yàlla na la ci fekk si parce que man loolu laa gëm. Mhm. te loolu laay def. jàng naa tuuti tey maa ngi liggéey sama liggéey. ñëw ma sama benn moroom góor su ma mayee baax na góor su ma mayul baax na. terewul mën naa mënal naa as tuuti sama bopp. donc sant suñu borom. ba tax na femme indépendante sax dafa xew. est baax que laaj na laaj na nga jàng nga nekk ci wala soo jàngul da ngay am difficulté. mën Euh, quand tu es dans le milieu dañ lay jox texte. Hmm. da ngay sa texte. Hmm. da jàng des fois mu am ay interview yoo xamante ne ni ay tey boo xasee par exemple boo xasee ba siiw man damay gis ay nit yoo xamante ne ñu jóge ba à l'extérieur ñëpp bëgg dafa man interview imagine hmm. toi interview war a nekk du début à la fin. nga wàccee làkk français. boo jàngul foo koy làkkee. donc képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci milieu bi muy milieu cinématographie bii nii c'est vrai bu yàgg la wala bu gudd la mm-hmm. man boog personnellement fas yéene ma si dund ba màgget ci mm-hmm. non pour c' est pour un laps de temps boo xamante ne ni peut être sama passion la maa ngi koy def parce que maa ngi nekk jeune et tout mm-hmm. tey amaana su ma demee ba am jëkkër damay génn bàyyi sama mu rakk yi ñëw donc lu ma leen di conseil rek mooy ñu jàng nga xamante ne tey bu ñu jox seen texte au moins nañ ko mën a lire nañ mën a interpréter seen rôle comme ni ko scénariste bi bëggee tey ngay nga boolee métier bi ak voyager di jaay yor si business bopp est-ce que c'est facile loolu yomb na. ah c'est pas du tout facile parce que des fois di nga bëgg dem liggéey bu tënk la comme nii nii nii man képp koo xam ne ku ma xam xam ne ni weeru ko damay indi bagage damay jaay. Mm-hmm. mais ren awma sax bagage parce que maa ngi suñu beneen contrat bu bees. Mm-hmm. war cee liggéey donc may dem ay tournage ci weeru koor dama dem tourne ji. Mm-hmm. may yeewu 9 di dem tourner ba 19 heures des fois ndog ci mbedd la may fekk des fois fu may liggéey fa laay ndogoo mhm. donc métti métti na trop mhm. yombul donc à part infidèle ñu xaala ci yeneen série waaw xaal leen mu ci lu bees tàkk nag loo mhm. xam ne beneen facette ngay indi waaw nañ gis xam ne nañ pour ñu xam euh, pour ñu xam un vrai acteur wala une vraie actrice. Mhm. il faudra que tey bu ñu la xamee ci rôle bii nii. Mhm. ba rôle boobu tax àdduna bi ñëpp xam la. Mhm. fu nga génnaat feneen foo xamante ni di nga prouver ni que yow. tu es une très bonne actrice. di varier ay mbir sax da ciy baax. nekk ki nii parfois nga def lii def lee lan ngay tàggatoo ak sénégalais yi. Euh, di leen sant di leen gërëm. Euh, sama fans yi fépp fu ñu nekk à travers le monde mm-hmm. message yi nag fu nekk laa ko jotee donc maa ngi sant ñëpp mm-hmm. fu sant yam mm-hmm. maa ngi remercier ñëpp maa ngi baalu ak ñëpp parce que des fois nga wax wax ju rëy mu heurte nit ñi wala mu déranger leen kilifa diine yi kilifa aada yi képp koo xamante ne rek yaa ngi yeewu ci réew mi wala foo munti nekk ci àddina man mama faaj mu wax sax mbayang mama faaj man maa ngi baalu ñëpp ak te maa ngi baal ñëpp àkk maa ngi jéggalu ñëpp. Mhm. ndax nit matut te rôle la boo xamante dama koy incarné kese. Mhm. du leneen may baalu ñëpp àkk di wax nag sama fans yi. Mhm. gis naa message yi. appel yi. teraanga yi lépp gis naa ko. donc maa ngi di sant di leen gërëm di gërëm waa Dakar Buzz di gërëm nag sama grande sœur. mention spéciale à parce que nekkul Sénégal. mu ngi liggéey ci sedd bi. te lu am mu ngi koy bokk ñu ngi ko war a bokkal. am naa ay mag sama mag yi j'ai deux sœurs deux frères am naa sama am na yeneen mag yoo xamante ni suñu yaay ñoo bokk et tout donc mais fa jël ñëpp njabootee ñëpp njabootee ñëpp xam nga nga nekk taaw dafa metti mhm. oot na nga nekk jigéen mhm. mais nga nekk nag jigéen boo xam ne nga toog toogaay yaay mhm. uf say rak uf ñëpp loolu yombul toujours rek man su may sant sant bi ci moom laa koy commencé parce que gisuma yaay boo xamante war naa ko sant mais sama yaay dama koy ñaanal sama pap leen di ñaanal mhm. fu ñu nekk fu gënal leen fu ñu mhm. ko def mhm. ndax pour man loolu kese lañ fi lañ dese di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àkk ñëpp AMS shop Arnold Diouf sama xarit boobu nga xam ne sama doomu ndey la fu ma nekk mi ngi fa ay Aysatu Caam ñëpp xam nañ ma ak moom ay Aïcha infidèle moo ñu boole mais yàlla dafa def tey mag moom on est comme des sœurs loolu kenn waxatu ko. Mm-hmm. Euh, bi immobilier. Mm-hmm. sama frère boobu nga xamante ne mooy euh, Billy. Mm-hmm. Billy Sarr. c'est mon frère sama lépp la. sama grande sœur yi bàyyuma kenn mënuma lim nag ñëpp. mais sama grande sœur yi sama grand frère yi. waa Maroc ñëpp ah sama sœur yi nekk Dubaï ñëpp bàyyuma kenn. ñu nekk Europe bàyyuma kenn Chine Japon ñëpp bàyyuma kenn. di remercier aussi nag Diba Luxury mention spéciale à Diba Luxury parce que moom. bu ma nekkee mbayang ba tey yére bu baax ci man. ndeysaan tusi bu baax ci man ñëw bu baax ci man. Mhm. xale bu ndaw la maa ko mag mais c'est un jeune boo xamante c'est un jeune mhm. boo xamante ni mu ngi def liggéeyam macha allah gëm boppam di def daal du doy waar. di remercier ñëpp. Mhm. di baalu ak ñëpp yow tam di lay remercier si ñëw bu ngeen ñëw tey parce que man euh, comme li may wax rek xam nga tey ku ñëw sa kër. kooku mënoo koo fay. Mhm. ngeen bokk toog ngeen waxtaan ngeen ndogandoo ngeen mhm. bàyyi seen activité yëpp ñu topp mu ngi dem ba mhm. la donc tey moo tax ñu def ko si te yiw rek dañ ciy jublu ñaan ko ay dëwëni dëwën lu ñu def ren as ci def yàlla na multiplier ba dëwën ñu koy def ba mu nekk ay million million million million ñu koy def ci à travers jumaa yëpp man taalibe Cheikh laa ñëpp xam nañ ma ko fenn li ma doon dama koy wax mais tey sama ndogu euh, sama ndogu ak sama euh, astut bu ma yor pour mm. laytu xadra bi masaalu mm. ko dinaan laa ko yóbbu donc mu ngi noonu fépp mm-hmm. Mm-hmm. Euh, daara yi sama koñ Ouest fii mm-hmm. mosquée bi ma kenn kenn kenn kenn kenn di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp di leen wax kontaan naa ci ñëw bi ñoo ñëw tey vraiment. <laughs> merci beaucoup fa lay jaaree rek remercier kenn ci man di Aïssatou fay ku nga xam ne nekkatul sax sama yaay sama mag la ndax dama koo yeb dama koy remercier bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram suñu borom gën koo taxawu. nii lay demee saa su ne rek à travers Dakar Buzz ma ànd ak sama cameraman nag di Malick di ko jaajëfal bu baax lépp lu fi baax rek moom la di leen wax ne ak yeneen ma gis rek fii lay xewee Dakar Buzz bu leen bougé man leen toog leen foofu xaar ñu ndax heure boo leen soxlawee rek dañuy disponible merci beaucoup à la prochaine